Euh, vraiment am na bagage bagage yoo xamante ni am na salon complet am na moquette moquette euh, turquie am na boutique yoo xamante ni ay Dubaï lañ jóge am na njëganaay am na yoo xamante ne ay mouchoir yaa ngi am na am na bagage daal loo ci bëgg rek ensemble ci salon yëpp boo ci bëgg rek lu dem ci kër gi yëpp am na moom tissu si yaa ngi am na aussi euh, marque liis yoo xamante ni ñu ngi jóge ñu ngi jóge Égypte am na tamit ñu ngi koy indi fii dañ comprendre am na yoo xamante ni moom ay tissu yoo xamante ni turc la jóge ay façon mouchoir boo nekk boo ci bëgg rek métrage boo ci bëgg rek am na am na 6 am na 4 am na yëpp métrage boo ci bëgg daal am na dañ comprendre moom loo ci bëgg di bagage daal moom mu ngi fi am même ridon yi ensemble ridon yi yooyu moom bëgg na ci am am tout wallahi njëgg naay tout yëpp ensemble yëpp boo ci bëgg kër boo xamante ni moom ñu ci yoo xamante ni ñoo ko laal kër yi yëpp même euh, armoire bi am na armoire kii armoire yi boo ci bëgg rek am na canapé am na am yëpp am na macha allah ñu ngi yor alhamdulilah rabbil alamin fii macha allah société alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi indi si bagage suñu bopp alhamdulilah wallahi société bi mu tudd El Fath Mafrochaat mooy société bi El Fath Mafrochaat El Fath Mafrochaat loolu mooy turam waaw El Fath Mafrochaat fii ci cinquième waaw am na fii cinquième am na yoo xamante ni nekk ci sixième alhamdulilah rabbil aalamiin am na six places foo ci bëgg rek moom numéro téléphone moom bokk na ci. ka 00 222 42 00 66 27 loolu mooy sama numéro waaw. waaw prix prix xam nga ça dépend ak qualité bagage yi parce que boo ci gisee salon yi solo am na nga xamante ne salon dans ce vendé am na salon yoo xamante ne 14 mai deuxième choix. am na premier choix ak deuxième choix parce que sa yomb euh, euh, qualité yi bokkul am na premier choix dafa xaaw cher tuuti am na deuxième choix yoo xamante ne ñoo yem yëpp ñoo xamante ne ñoo ko bëgg parce que euh, prix yam yem na ko waaw waaw voilà ba am na yoo xamante ni deuxième premier qualité moom tey fa xaaw cher quoi mais aussi prix qualité bu baax la quoi waaw presque salon yenn saa day def ba 200000 am na salon yoo xamante ne day dem ba 500000 à part am na ñoo xamante ni mar la fekk ñu ngi yor moquette am na ñoo ni amuñu boole ci moquette boole ci mouchoir que am na ñoo xamante ne ay ensemble lañu ni moom euh, euh, salon fekk ñu ngi yor moquette wala ay salon kese nañ jënd ñu calculer salon bi parce que yenn saa 200000 yenn saa 150 am na ça dépend ak qualité salon bi quoi am na mat la am na 30 am na 20 am na 10 ça départ ak li nga bëgg am na 50 000 6 mat la am na mat yoo xamante ay 100 am na 6 mat yoo xamante ni day dem ba 110 000 sa départ daal waaw ak qualité bi nga bëgg quoi am benn problème loolu kay macha allah yëpp am na yëpp am na parce que macha allah rab ñu ngi jaay fii ba Égypte ba Maroc alhamdulilah ba Mali macha allah am na yeneen yoo xamante ni dem ba. même Niger am na ñoo xamante macha allah am nañu client macha allah ñu jógee bi ci réew sax du Mauritanie fii quoi Égypte am na am na euh, Algérie fii ñu ñëw fii jënd ay salon Mali tamit macha allah ñu ngi ñëw fii jënd ay salon macha allah macha allah vraiment macha allah. Euh, ñun am na six places te fii la nag euh, ak trois yoo xamante ni nekk ci tali fii ci cinquième ci tali ci tali bi foofu trois am na yoo xamante ne nekk ci. am na benn place mu ngi ci Frères Sénégal am na place mi nga xamante ni mu ngi ci premier waaw alhamdulilah six place la. Euh, mu assistil fete numéro am na deux numéro numéro 40 42 00 66 27 am na numéro 46 77 97 77 45 mooy numéro plaquette bi quoi. te numéro moo fi nekk. ñaari frère nga woo sa mbokk Mauritanie nga laaj leen na xamalaale leen tamit ne la am na tamit fii te mu ngi leen di xaar. mooy laaj leen naar quoi. ñoom euh, si moo wax leen ku ci naar numéro bi quoi. هنا 40 صفر صفر 66 27 هذا الرقم الهاتف و 46 97 75 45 هذا الرقم الهاتف الثاني يعني رقمين أيهم مشهور مشهورين أيهم الواتساب